assalamualeykum mbokk internet yi ñu ngi leen ñuy di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax vidéo bu ñu duggal rek di nga bokk ci ñu koy ñëk gis way leen di like di commenter ak partager vidéo yi loolu ngeen ñu mën a soutenir aujourd'hui on va parler de Sayan Durand Sayan Durand national du Sénégal à ah. ndax Alioune Seye dina ko sélectionné ci prochaine liste bi loolu ngeen gis ci vidéo bi mais laata loolu day dem ci page publicitaire bi te ñëwaat. mani seen jaaxle jeex na ginnaaw ba ma leen wëralee Serigne Cheikhouna Ifade ba gis ko waaye bi ma ko gisee sama xel dafa dal lool ndax nag moo ma doy ci wàllu pajum cosaan ak aada moom nag moo ngi ak ay bagages yu doy waar yoo xam ne pour saafara soxlay jaam yi la mu yëngu nag ci wàllu seet maanaam seet gu we te wóor rawatina seetu ramli waaye tamit day yëngu ci lu jëm ci wàllu jëm ci wàllu cet maanaam bu ngeen ñëwee dana ni koy saafaral ak képp koo xam ne sa yaakaar dafay tas waaye képp ko xamne da ngay faral di am ay jafé jafé ci sa walu relation wala ci sa walu bëggante dawal seeti ko gaaw amna ay jaara yo xamne jaara ubi kay la ak ay jaara bayré waaye tamit Murakami moo gën a doy waar Murakami boo ko jëlee dangay daal di gëna am katan yeen ñi ñëw katan dawlan leen ko amna ay ciangati bayré wala sa ko xamne da nga bëgg am kayit mané dawal ñëw gaaw fi ci Serigne na Ifada wala nga woko ci numéro bi 78 436 91 22 waaw gars yi comme ni ma leen ko waxee rek tey Saër Ndour la ñuy wax ah, Ndour euh, l'italo sénégalais bi nga xamante ne il est extrêmement talentueux vraiment le talent bi ñuy wax ci football rek ñu ci moom. donc damay wax nag bala maa commencé vidéo bi ñu nekk TikTok bi ñu ne seetaani ko ci YouTube parce que c'est très important ngeen dem àggalee ko fa waaw euh, Saër Ndour nag euh, comme ni ñu ko xamee rek un jeune joueur très talentueux boo xamante ne 18 ans rek la am déjà vraiment di émerveillé fofé ci Europe surtout ci club bi di Benfica vraiment moo fay woné boppam bu baax baax loolu nak waral ay club yu mag yu nek fofé ci Europe euh, diko ko ceytu ngir bëgg koo indi seen club ba euh, mu jàppale len ci liggéey ba ndax gis nañ euh, potentiel bi nek ci mom ku ci mel PSG ku ci mel Manchester United ku ci mel la Juve ñoom ñëpp ñu koy bëgg donc instant bi ni euh, Sénégal rek des Sénégal parce que gis nañ sax Italie euh, bi nga xamantene fa la ñu koy xel bu baax euh, coach bobu di Roberto Mancini mas na ko wo ben stage et tout donc instant bi nii deful rek Italie na jël kon que lolu nak bala dal il faut Aliou c'est réagir à la réagir Senegal suñu prochaine liste bi ñu ci Sénégal ak mu xamante ne euh, nekk na match boo xam ne tey jii mën nañ ci lancer jeunes joueurs yi euh, pour ñu feeñ parce que déjà qualifié nañ ci kan bi euh, suñu cinquième match la rek te match la boo xamante ne yi bari dañ ci war a am place donc ku ci mel ne Cher Ndour mi bind sunu yu bari en fait ku ci mel ne Cheikhou Mara ku ci mel ne Soufiane Diop Boubakary Soumaré Aliou Cissé ñoo ñëpp daf leen a war a woo parce que ñi muy woo ñi ñëpp ay Gana ay Cheikhou Kouyaté ñun ñëw ay Krépin jataa ñun ñëpp xam nga ne ñoom heure bu leen soxlaa dañuy ñëw kon tegaleen de côté nga wóbbi na sunu yi nga xamante ne instant bi nii boo wëttuwul Sénégal mën na leen a ñàkk boo wëttuwul Sénégal mën na leen a ñàkk nga indi leen teg leen il suffit juste nga indi leen daal leen jooyloo quelques minutes daal leen di bàyyiwaat parce que loolu boo xasee def rek jeex na tàkk am nga leen. ça y mais en tout cas Sayer Ndour c'est un jeune joueur boo xamante ne Italie mi ngi koy bàyyi xel boo wëtuwul ni ñu Allemagne def rek Italie mën nañu koo def kon Aliou réagiral bokk réagiral yàgg nañ laa xaar ci yu mel nii ngay bañ a réagir mais.